wa duuna na naaqa yi moos min baadi ma kaanat gannaaw bu mu nekkee hunayda tan di hunayda téeméeri gëléem jëm kaw mooy hunayda ba gannaaw ba nga xamee ni matoon nañu téeméer moom naaqa yi sa sonal gi tax na xadat mujj na ak sara gën a bare min zawda naam ndax zawd mooy lu diggante ñett ba ci juróom-ñeent mooy zawd léegi kon gëléem yi ëpp na zawd xëy na mat na fukk ak dara wa doona chanaqin te manqué na chanaq mooy diggante fukk ba ci ñaar fukk moom daal ay fukk ak yooyu mbaa fukk ak benn ak fukk ak ñaar waaye matatul sax ñaar fukki gëléem te te mëtoon na Hunayda yi nga dafay jàngale ki arab yi Hunayda téeméeri gëléem la ak yooyu daal zawd nag ñett ba ci juróom-ñeent chanaq mooy ay fukk ak yu demee noonu wa in tamaadayta ala itcaabiha wa lam takun muntahiyan an rahaqi fa sawfa taxruuka fa sawfa tacruuka ala itlaafiha nadaamatu lkusciyi walfarasdaq wa in tamaadayta soo continuer ala itcaabiha ci sonal gii ngay sonal naaqa yi wa lam takun nekkoo yow xaada lay noq lay waxal nekkuloo muntahiyan di aji yam an rahaqin walis gétan gi nga koy gétan kon fa sawfa taaruka dana la mas a gaar nadaamatul kusin récc gu mel na ga kusin yi récc woon wal faras daq ak naaq euh, récc gu mel na ga faras daq récc euh, woon ba mu fasee nawaar euh, dana la gaar récc googu ala itlaafiha ci sa yàq gi nga koy gi nga alag gële bi kon récc googu dana la ca gaar kusin yi ak faras daq daawoon xam nga doon nañ ci maqaama doon nañu wax seeni xisa la tax arab def ko masal ci réccug kusaxi ak réccug farasdaq kunta qad uwidta min axfaafiha xuffay xunaynin zaafiran bil anaq wa kunta tekkoon wa kunta la de soo soo bàyyiwul sonal bi ngay sonal naaqa yi da wa kunta te da nga nekkit xad ñu wecci la min axfaafiha ci ndëppi ya mu daan doxe xam nga lu ñu loo cay mujje lu ñu la cay weccee xuf fay unaynin dafay jinaas axfaaf ak xufu axfaaf yaa ndëppi tànkam ya mu daan doxe lañu ñu la koy wecce xuf fay unay xunaynin ñaari xuffi xunayn kookoon xamoon ngeen xiseem arab def ko masal ci ku koo xam ko wuti perte la xisa ba dégg wax nañ ko ba tey gaafiran ngay aji gan bil anaqi ci mbég da koy mokke di kay mer lay gañ waaye du gañ bépp amuñ say naaqañu di ca alag leen ba ñàkk ko ok xam nga da koy mokkee ko kon doo ci da ngay aji bir maanaam aji am naqar min ibni zalimi in kunta min baadu biha lam tarfuq la anta yow waxaadi lay not azlamu yaa gën a tooñ moo yaa daqa tooñ min ibni zalim ibni zalim benn daan bette di rey la Euh, in kunta soo nekkee lam tarfuq jàppandala loo bihaa ci dàq yooyu mimbaadu gannaaw ga kon yaa gën a mën a tooñ ibnu zalim azlamu min ibni zalim xan bihaa qad balaga saylu zuba wattasaa alxarqu ala almurattiq rifqan bihaa maanaam na nga ko def ndànk masdaru fiil yu ñu xadaf irfaq bihaa rifqan masdaru tawkid li rifqan na nga yombalal danga nga jàpp ndalal bihaa ci naaqa yi bu leen sonal ndax xat balaxa jot na a seylu wal mi a zuba geejo ya zuba jam u zubyatin mooy kan yu ñu daan gas ci àll bi pour di ca rëbb gaynde maanaa gaynde su fekkee dafay jàpp jur gi wala yu demee noonu ñu seet yoon wu muy jaar ñu dem ca tund wa seet fa mu fay jaar ñu gas fa am kan mu xóot moo xam ni kàmb goo xam ni bu dikkee dana ca mën a daanu jël nag ay bant lal ca bunt ba ak i lu ñu ko mën a euh, lëppe ba suulaat ko mu maase ba boo dikkee doo gis kan mi su ko defee bu dee dox jaar fa mu daan jaar bu dikkee ni ca sëra su ko defee ñu daal di koy jëkkanteeg yet yaag jeesi yaag neppale neppali boo xam nga ay fetal amul neppale neppali dóor ba rey ko loolu mooy jam u zubiyatin zubiyatu mooy kan moom moo tax ñu daan ko defal loolu ñuy wax yaar day aajo gàtt bu ñu fa yeew bu fa nekkee di meem gaynde ga riir wut si ko noonu lañ ko daan fiire gàtt gi moom dumat la fiir la gàtt booboot moom lañ daan wax yaar li tax nag mu ni balaxa seylu subaa léebu arab la fa zub ci tund lañu koy def walum ndox ci xur yi rekk la daan yem amma bu jéggee dayoon ak doon mbënn moo xam ni day dem ba ca montagne ya bay yegg ca fa ñu war def zub ya kooku mooy bi maanaam mbir mi jéggi na dayo mëneesatu ko arrangé loolu mooy léebu balaxa saylu zuba xam ngeen ibnu duray di waxoon na ko lastu man ida lastu ida ma xamarat ni xamsatu mimman yaqulu balaxa saylu zuba ak beneen arab ak itam mu ni na nga xam ni ittasaa yaana alxarqu xottik ba ala ratiqi alal nga xam moo doon daax ba tey maanaa bi benn la léeb la boo xam mbir mi jéggi na dayoo mu neesitu ko arrangé xottiku bi ëpp na loxoy ki koy nar a ñaw mooy mbir mi jéggi na dayoo ah ittasaqal xar xarqu ala ratiqi noonu la ko arab yi daaw mu ne alal murattiq dégg nga <coughs> wa wahab li aydihinna aydan walaha matnan matinan maa xalaa am masdaqi fama li zonin xamalat min mirratin bidaanin awdaa biha fi lxasaqi wahab dëgg la sax na nga jàpp ni na nga defe ni li aydihinna ñeel na loxi loxoy gëléem yooyu aydan doole dafay jinaas aydi ak ayd ayd bi maana alquwa ak ayd bi maana jam il yadi wahab na nga jàppe wax ni na jortu xam xam ngeen ni fi'lu naasix la hab ko taallam wahab li aydihinna aydan na nga jortu ni seen loxo yi am na doole ba tey tànk yi wala haa nga na nga jàpp ni naaga yi am na mat nan ak gannaaw matiinan gu dëgër ñi nga mat noog mati maa xalaa wéertul an masdaqin ci ci doole ma ngi am doole ba tey na nga jàpp ni ba tey ñu ngi am doole maanaam masdaq shiddatu wa salabatu dooleeg dëgër mooy masdaq na nga jàpp ni seen loxo yi am na doole seen gannaaw yi dëgër na ba tey waaye kon it xanaa war nga xam ni fa maa li zonin xamalat mi mirratin bi zaanin aw daabiha fi lxasaq d'accord sax boo defee ni naaqa yi moom loo ko teg mën na waaye moom mu door a jaare foofu yéeg dem ca la ko tax a jóg moom itam xanaa xam nga ni fama li zonin ñeelul jigéen ña way fabu yoo xam ne xamala gëléem yooyu ñoo leen yanu xam nga ni jigéen ñooñu ñoom ñeelu leen min min rattin benn kàttan bisa anin ci laxas dep dem goo xam ne aw daa biha alag na leen euh, fil xasaqi ci lëndëm gi xam nga ni jigéen ñi ñoo amul loolu de yow daal asata lil xiidi wali nuuqi wali isaatan bi tawbatin lam tumxaq asata yow def nga lu ñaaw def nga lu bon daal lil xiidi ñeel jongama yoon jigéen ñu naat yaram yooyu wali nuuqi ak naaga yi itam def nga defal nga def nga leen lu ñaaw wali ak man mu moom lu ci yoona wali man def nga def nga jigéen ñi lu bon def ko naaga yi def ma ko isaatan ñaawal goo xam ne lam tum xaq deesu ko mën a far bi tawbatin ci tuub jën tuub mënatu koo far law lam yakun bi xubbi xilmi ahnafi wal minqari qalbiya daa taalluqi xamaltu rasaka ala shabal qanaa murawian bihi hudaata eh, lay noqi hudaata xulaate law lam yakun su nekkul woon qalbi sama xol daa taalluqin di boroomuk aju bi xubbi xilmi ahnaf ci soppa lewat lewat gu mel ne lewatu ahnaf ibnu qays min saadaati bani tamim ah ku doyoon waar la min saadati taabiina bani tamim la bokk min qari mooy qays ibnu aasim nee na saxaabi yu la bu mag ku ci ne min man saada qawmahu ku ci ne nekkoon na kilifa ay bokkam siiwoon na it lewat ak makaarimul axlaaq laxnaf moom def nañu ko masal ci bari sagoog lewal ah. qays bnu aasim ah, nee na ama qays bnu aasim moom mas nañu ni laxnaf yaag mas nga gis ku la gën a lewata mu ni waaw qays bnu aasim moom a gën a lewat mooy min qari fekke naa ko bis mu toog di waxtaan noona ñu daal di indi benn doomam bu ñu rey ni tëral fi kanamam ak doomu bàyyi taxu xale ba maanaam koo xam doomu mbokkam la moo rey doomi boppam euh, ñu indi nag doomu mbokkam boobu ko rey ña ngi ko joñ indi indi doom ja ni ko kii day sa euh, ibnul axla ci yow daal rey na ibnu amihi rey na sa doom joñu nga xam ne ibnu am nee na taxul min xari dagg waxtaanam mu yeggale waxtaanam ba yeggal ni mu korosee woon ay loxoom ci tànkam dindiwu ko waxtaan ba yeggal door a geesu nag jëm ca waaja wax ci kenn ci ay doomam yu mag ni ko jëlal sa rakk ji nga dem suuli ko te nga yeewi sa doomu baay bii ñu yeew te nga dem nag ca alal ja jël ca dëye dëye ja téeméeri gëléem dem jox yaayam ndax doxandeem la fi séyaan la fi bu bokkoon ci famille bi sax duñ du ma ko jox dara waaye nag jàmbur bu ma tëkkoon la kon nag demal fab dayee doomam téeméeri gëléem daal di continuer ci waxtaanam kooku kenn mësul gis soosu sag boobu sago mu ni ko law lam yakun bu nekkul woon qalbi sama xol bi xubbi eh, za taalluqin di boroom aju bi xubbi xilmi ahnaf ci cofeel gu ma soppa lewat comme ahnaf wal min qari te mooy kooku kon bu dul woon loolu xamaltu yan yan ko naa rasaka sa bopp ala sabal xanaa ci ñaw kay xeej noonu daanañu ko def ci xare yi su amee koo xam ni ak deexam dañ koo bëgg a siiwal xëy na jàmbaar ju leen lëkkaloon ci xare la bu ñu ko reyee dañuy fab xeej jam ca jam ca gannaaw bu ñu daggee bopp ba ni ko yëkkit seenu ni leen bopp diwa ngi nii pour mu nekk seede ni diw rey nañu ko ku ko doon jàq sa xel dal mu ni ko yow bu dul woon loolu kon sa bopp bi yëkkati ko naa ko ci ñaw ka xeej mu rawi an bihi di ko tiitale xudaata lay nuqi mboolem ñuy jiitali naaqa bu soobee kenn dootu fal naaqa gannaaw te garaaw na waaye nag comme looloo am baax na continuer ci sa liggéey fasuq fasuq fala naima awfuka wala amina xawfuka wala tadram fiqi wa da yasuuqu baadaha baadan faqad dana wuloojuha bi waarin dayiqi fasuq kon booy boo continuer jiital say gëléem te dem rek fala naima yàlla bu xéew aw fuka sa mbir wala amina yàlla bu wóolu xaw fuka sam tiit yàlla bu sa xel daal mukk yàlla nga dëkkee tiit wala tadram fiq maanaa yàlla boo dem di gaaw maanaa yàlla boo mën a gaaw ci sa dox wadda bàyyi li gëléem yi su ko defee yesooq di jiital baaduha yenn ya baadan yenn bàyyi leen ñoom ñu doxe seen sago ndax faqat danaa jege na wuloojuha seenub dugg bi waarin ci place bu dëgër dayiqin bu xat te nag wal tattaxid nii raidan fa inna nii zoo xibratin bi mubhamaati turuqi in xarasat alaftuha walaw bima jamactuhu min zahabin wa wariqi aw sadiyat awradtuha min admuci nahra al ubullati wa nahra jilliqi te nag na nga itam wal tattaxid nii na nga ma def nag yow xaadi lay nuq na nga ma def man euh, raidan may kuy raid koo xam mooy seet fu gëléem yi war a mën a fareeg yooyu man moom bëgg na dugg ci liggéey bi daal ba mën a jege jigéen ñi wal tattaxid nii na nga ma def raidan may raid taalibul kala fa na nii ndax man zoo xibratin boroom xam-xam laa bi te turuq ci lëndëm lëndëmi yoon yi fu waree sa man jaar ak fu ñu mënta jaar man xam naa ko in xarisat alaftuha walaw bi ma jamaatuhu min dahabin wa wariq in garisat waxtu woo xamee ni naaq yi xiif nañu alaftuha man danaa ko xont walaw bi ma jamaatuhu doonte dama koy xonte la ma dajale woon min dahabin wa wariqin ci wurus ak xaalis it lépp danaa ko jënde xont xonte le aw sadiyat wala bu maree awrattuha ma wëgge ko ma rotal ko wëgge ko warada atal ma ma wëgge ko min at mu ci sama rangooñ yi laa koy wëjje danaa ko wëggee ci samay rangooñ nahar naharal ubullati dex gu mel na dexu ubul la goo xam ne ci sama rangooñ yi lay jóge wa nahara jilliq ak dexu jilliq mooy dimashqu sham dimashq mooy dimashqu sham mooy jilliq ubullati ca basra la ne ñaari dex yooyu daan rifqan biha shafiuha hawaadijun xadat samaa kulli badrin mushriqi ah, min kulli gaydaa aruubin baddatin rububatin aytaa zaati rawnaqi xaridatin mamsuudatin raqraaqatin wahnaanatin bahnaanatin mutanaqi rifqan maanaam na nga ndànk bi haa ci naaqa yi leen di ramm hawaadijun mooy ay hawdaj maanaam jigéen ñi ci biir hawdaj yi war na ramm yi war nga li tax ñooñu ormal ñooñu tax doo yëngal naaqa yi kon ñoom ñoo ramm naaqa yi maanaam ormaalal naaq yi ndax jigéen ñi ñu xam ñu ngi ci seen kaw hawaadij ay hawdaj mooy marka maraakibu nisaa hawdaj yoo xam ne xadat mujj na sama ak kulli badrin di asamaanu bépp weer maanaam jongama ji sa biir lay nira léegi weer hawdaj yoo xam ne mujj na doon sama asamaanas bépp weer musriqin wu leer te mooy min kulli xaydaa ci jëpp jigéen ju di aji yaram jam uha xaydun aroobin ku di aji soppe baddatin ku naatu yaram nooyu yaram rububatin ah, rububa du kayfan naimatul badan ah, baddatun ah, raxsatu rububatun maana albaydaa munaama ku weex ku xees pecc te naatu yaram aytaa ku gudd loos za taraw naqin di boroomu taar aywa alxaridatu mooy bikru lati lam tumassa maanaam e, jànq boo xam ne kenn jotewut ak moom xarida wa yuqaalu lu'latun xaridatun peru wurus xarida boo xam ne kenn bënnu ko la muy saqal mamsudatun maanaa ku sew ndigg la majdulatul xalq raqraaqatun ku leraxu yaram la wax naanatun ku tayeelu yaram la loolu daan daanañu ko eh, eh, tagge jigéen ak tayeel dégg eh, ci fee wayu imrul xays loolu dikk na ci ba yeggal loolu bu jëkk daanañu ko taggee jigéen texat maanaam kina la ci ak texatam ak neex jamonoom wute naag ji jamono dañoo bëgg jigéen mel na kéwal guy feewu feew yi dem na du noonu la Euh, bahnaanatul mutanaqi maanaam koo xam ni ku euh, neex a gàlloonteel loos la ci jub mutanaq maanaam litinaq bahnaanatul litinaqi min itanaqahoo gàlloonte naag moom loos wa qul li rabbaati lhawaadijin jalina aminaati fazain wa faraqi fa innani asjacu min rabicatin xaami dacinati lada waqti luqi waqul waxal li rabaatil hawaadi ji ñeel boroom hawda mooy jigéen ñoon ni leen in jali na feeñ leen in jali kii dafa def in jalay na déedéet laam bi dañ koy kasar feelu lamar la in jali ala ayuha laylu tawilu alan jali in jali na wuññiku leen feeñ leen bu ko su ko defee ngeen feenee aminaati fasain fekk ngeen di way wóolu am tiit du ngeen tiit kenn du leen tiital muriku leen rek wa faraqin akum tiit fasa ak faraq ñooy yom rek mooy tiit fariqa faraqan fasia fasa fa inna ni ndax man lu tax ma nit bu ngeen yeboo wóolu bu ngeen bañ tiit dara muriku leen rek fa na ni ndax man asjau maa gën a jàmbaare ma gën a ñeme min rabiata baa ji ñu wax rabia moom moom la jamoon ba mu xam ne Euh, day dee ci ba mu dee xaar aw jigéen ña mu doon xeexal jam nañu ko ba mu wóor ko ni day dee ma ngi ci euh, saraab bi boo ko seetee waaye mu daal di euh, daal sukkandikoo xeejam daldi di ni leen daw leen rek fekk nag tiital na gaaya ba ñu koo jege mu war fas wa ni fa jog ndeke jam-jam bi dana ko rey ba mu xamee ne day dee mu ni jigéen ña mu doon rawale mu ni leen daw leen a daw rek daal di sukkandiku foofa bëgg na balay yegg tàngoor wi jàpp ko ba muy daanu di dee te gaa yi fii ñu mu taxaw ci fasam dootuñ ñemee ñëw jigéen ña daw a daw ba raw ba mu jekkee ba yàgg rek ba tàngooru wi dal rek tàngoor wi jàpp ko rek mu daal di daanu hmm. fas wi di yëngatu mu daanu ñu door a xam ni dee na ñu di ko fekk jigéen ña moom daw nañ kon nag xaar na jigéen ña ci gannaaw bu dee ba noppi ànd ak dafa dee sax fa aminaati fasain wa faraq asbaau min rabiatin xaamida inati ka doon xaar jigéen ja la daa waqti luqi ca waxtu xare wa luqiyu liqaaw min asmaa il xarb masdaru laqa laqaahu luqiya liqaan wa luqiya fa rubbama na nga leen ni nañu muri ko rek fa rubbama yabdu ida barazna lii riimun ilayhi taalabi tashawuqi lubna wa ma adraka ma lubna biha uriftu sabban mughraman za qalaqi fa rubbama yabdu na nga leen wax ni nañu muriku amaana lee dana feeñ kon ida baras na bu ñu génnee eh, kon ah, fa inna fa rubbama bu ñu ida baras na lii bu ñu génnee ñeel ma jëm ci man rubbama yabdoo amaana dana feeñ kon riimun kéwal gu weex goo xam ni taala yàgg na tasawuqi e, bihi sama sopp ko taara tasawuqi ilayhi jëm ci moom ri riimun ilayhi taala bii tasawuqi waaw rabbi nga bind taala bii rekk la de raanéw fi da nga def taala rabbi riimun ilayhi taala bi tasawu tasawux mooy kan riimu bu kéwél goo kana lubna kenn la ci ñoom wa ma adraka ma lubna loolu waxu arab bu dee tafxiim lu rëy mu ne nangam ni balay wax te nangam ja dara mu ne moo ku la xamal nangam wala lan mooy nangam bare na ci alquran trop alqaariatu mal qaariatu lan mooy qaaria da koy garaawal hmm. wala maa adraka maa nangam nee na lubna bi ci moom uriftu la ma xamee soon lañ ma xame sabban ma ne aji sopp muxraman ku ñu xiir ci kooku daa xalaqin di boroom mu yëngatu mënumaa dalal sama yaram bu ma xasee dégg turam tasbi bi saxrin ajnabin wa marshafin qad irtawaa min qarqafin muattaqi wa naacimin muhaykalin wa faaximin murajjalin wa xaajibin muraqaqi wa aqabin muxajjalin wa micsamin musawarin wa cunuqin mutawaqi wa muxlatin tar tarmi bi qawsi xaajibin laaxidaha bi sahmiha almufawwal nee na lubna nee na amu ci sago tasbii day jàpp xaritam bi saxrin ci ree dégg nga ree ree yi ree yi gémiñ bëñ yu rangu bëñ asnabin bu bindoo chanab waxoon nañu ni moo di tarafun fi diqatil asnaani wa bariq mooy neexu ree fi nun daal ci bunu tënkee wax ji baat maanaa bi noonu diw ku neexi ree la maanaa ku rafeti bañ la du dëgg dun diw dafa neexi ree ci wolof mooy lan dafa rafet ay bëñ rafetaayu bëñ nag mooy cat li bañ a datu gàtt mel na lu ñu kët ba yeggal ndoxu bañ bi di lerax loolu mooy chanab wa marchifin ak muusukaay dégg nga maanaam gémi xadir tawa boo xam ni naan na ba mandi xam nga muusu ay lorog yooyu ci seen wax la bopp lu mu kii ma nandi min xarxafin ci sàngara su foor soosu mu attaqin suñu yàggal ci damsaan xarxaf mooy sàngara bu foor boo xam ne ku ko laaj yaramam day bëg-bëg dootu mën toog wa naacimin ak aji nooy mu haykalin bu ñu def comme tund naacim bi mën na ci jublu benn yaram ngi daal maanaam mu haykalin bu rëy comme haykal wa faaximin lu ñuul kukk njañal kawar gi mu lu ñu peñe wa xaajibin ak yéeni bët mu bu ñu sewal loolu moom la la ñuy feeñale seen taar ku ko ci bindoowul nga dem di ko wat di ko sees ak lancet ba kawar gi doon rëdd wu sew ñenn ñi di ko wat ba mu set ñu jël eh, lu mel ni big bu ñuul rëdd ko fa pour bëgg mu sew noonu wa aqibin ak testan dégg nga mu xajjalin bu ñu takkal lam xijaal mooy lami tànki jigéen wa misamin ak xasab musawarin bu ñu def lami siwaar mooy lami sew yooyu ne ci loxo yi wa unuqin ak loos mu wa bu am caq tawq mooy xilaade wa muqlatin ak nagu bët boo xam ne tarmi day jame eh, bi qawsi xaajibin day jam ku muy jam laaxidahaa ka koy xool bët yoo xam ki koy rafetlu ba di ko xool ki mu rafet fi moom ba di ko xool eh, mot ba bañ ba bët ba daf koy sànni bi qawsi xaajibin ci xalak xaajib loolu tawriya la dafa dafa ko bëgg a sànne ak xaajib yéenam ya nga xam ne day lunk ko bët bi mel ni xala fekk itam xaajib ibnu ah, xaajib ibnu zuraarata min tamim jàmbaari arab la joo xam ni dafa dafa arab def na masal ci xalak xaajib ndax da ko tayle woon kisra garantee ko ay bokkam ci xisa bu gudd ba nga xamee ni dem na ca kisra Oh, gaarante fa ay bokkam mu ne ko ana lan mooy doon sa wasi wasiqa loo may gaarante mu ne ko xala gi nit ñaree laay laay mu sis bant ku koy gaara ah, kisra leen hey xamu leen arab de xalaam gii lay addinaa gi ci biiram jaralu ko ñàkk ko ah, su ko defee nag masal ba des ci xalak xawsu xaajib xawsu xaajib waaye kii def ci tawriya xaajibul ayni bi la la ñu euh, sewal euh, rëdd ko bu jekk mu wër bët bi rafetal ko te su ko defee euh, forme bi la tudde moo tax mu tudde ko xala te xaaji mooy xawsi xaaji maanaam xaaji bin kal xaws su ko defee mu tawri ca xaajib ibnu surarata ak xalaam nga mu tay la woon kisa bët boo xam ne tarmi day jam laaxisahaa ka koy xool da koy sànni bi xaw si xaaji bin ci yéeni bët yu mel ni xala xawsu xaajib ibnu zaraar mu jànku bi sahmihaa ci balu fettam ba al ba di bu ñu defar ba mu jekk mufawwaq mooy lu ñu defal fuuq fuuq mooy sahmu bi ngay sànni nga antaaje fi xóot-xóot boo xam boo ci tegee buumu watar bi du beppeeku dañ mufawwaq tamnau ثوبها لجسمها ثلاثة مثل الأسافي في الرقي حقان من عاج وقعب فضة من ظاهر وباطن كالشفق ne tamnahu day tere salaasatun yett tamnahu day tere salaasatun yett ñooy tere massa saw biha laal gu séer càng mbubbam mën a laal li gis mi ci yaramam ne ndaw si bu soree mbubb mbubb mi du laal yaramam ndax dafa am yett yu koy tóoj mooy yett yoo xam ne mislul dafa mel ni ay wasi kaw diir ay bos xam ngeen fi ruqi ci ak kawe ak yéeg mooy lan benn xoqaani ñaari lu mel ni ñaari xoq min aajin maanaam ñaari ween yi lay jublu di leen nira léegi yaari kopp yi ñu liggéey ci aaj ba ñu ñëw kooku mooy lawnul jismi euh, weexaayu yaram bi la moo tax mu di ko nëraleeg aaj forme ween yi moo tax mu di ko nëraleeg ñaari euh, kopp yu mag yu këpp wa qaabu fiddatin min zahirin ak lu mel ni këllu xaalis ci gannaaw kooku njëkkaay léeg min zahirin biir ka shafaqi dafa mel ni shafaq ah su nga dellu xoqaani min aajim xoqam moo doon uh, lu mel ni kop bu kile ñu di ca def dara ci bu jëkk daanañ ci wax am na lu ñu daan wax tabe ceer xamoon naa ko xoq daal moom mel ni ki kopp bu ron bu ñu bu këpp noonu loolu ñaari weeni uh, uh, kii muy wasaf doon mu doonul jigéen joo xam ne wenn ya daanoogul moom la ne yett mooy tooy sëpp ba du laal ñaari ween yi ak njëkkikaay li ci gannaaw loolu daal mooy wax ji njëkkikaay nag la waxal ni dafa mel ni xaalis la ci bitti ci weexaay biir bi dafa mel ni shafaq wasaada misali warda xaddiha xusnan qad ama bi tibin abqi wa qabalat aqdaamaha zawaibun soodun ka qalbi alaachiqi almuxtariq wa zaada yokk na miskul xaali xaru maam yàllaam ba ceet lex ba mel ni misk ci ñuulaay misk da daan ñuul xaal mooy tupp-tupp bu ne ci yaram tuxaalifu lawnal jismi comme ab xaru maam yàlla xaw ma xam ngeen comme de daanañ ko xaru maam yàlla xam ngeen bu mel ni tupp tupp bu ñuul loolu woolu arab yi daan ko rafetlu bu nekkee daan ko rafetlu bu nekkee ci lexu ku rafet moom la ni wasaala yokk na isaada yokk na miskul xaali xaalam ba niroog misk ci ñuul warda xaddihaa xonqaayu lexam bay niroog ward dafa bëgg ni lexam bu xonq ba tupp tupp bu ñuul ba ca ne moo ko yokk taar loolu la bëgg wax wa zaada miskul xaali xaalun kal misk warda xaddiha ay xaddun kal ward mel ni ki zahabul lujayni zahabul asili ala lujayni almaai والريح تعبس بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء معنى أصيل كالذهب ماء كاللجين وكتي سكدفه Euh, mu nga jël mu mushabbah bihi def ko mudaaf laafal ko mushabbah ba ni ki lujaynul maay maana maa un ka lujayn waqad am